taxna deug deug nak nit ñi yëngu ndax joju jëf ju bon ay élèves yi sàkku xam-xam di ko man di defante ñooñu seen yek yek ci walu xol ma ngi daal di passé doon ab élève tax na coalition nationale euh, bi nga xam ne mooy lu jëm ci l'éducation ak union nationale des parents d'élèves du Sénégal euh, daal di yëkkati ay kàddu ñoom itam ngir dànkaafu xool xeetu comportement yu ñu miinu ci suñu école lu tax muy dugg ci suñu école léegi Abdou Aziz Sow vidéo bi fës lool ci réseaux sociaux yi muy wane ab élève bu yéeg ci kaw moroomam di ko toroxal ci teewaayub xaritam jàpp téléphone di filmer xeex bile l'UNAPES di ko ñaawlu Abdoulaye Fane muy njiit li. li ñu ciy wax moom lu doy waar la te il faudrait véritablement sanction yi nga xam ne moom lañ ko war a dal ñu dal di ko def situer responsabilité yi di fattali ne daaw rek ba ñuy ubbi sunu école te ñu defoon euh, jotaay bu mag waxtaan nañ ci di war nañ jël ay matukaay surtout que ci école yi sax ci texte yi nga xam ne moom moo régir conseil de gestion nga xam ne war nañ ko mën a jël pour que mel nii bañ a amati parce que dafa ñaaw. ñu nemmeeku ni violence mu ngi gën a fës ci école bi mën sax na saxal lu ñu bëgg ci joote ODD 4 buñ sukkandikoo ci njiitu coalition nationale éducation pour tous si les gorbal si. violence bi nag mu ngi commencé di sonal milieu scolaire bi loolu nag baaxul njàng mi parce que bu fekkee violence bi mu ngi am ci école bi du ñu mun a atteindre éducation de qualité bu ñu bëgg am ci école moo tax ñun kuréel bi dañuy veiller ak ngi woo ñëpp ñi nga xam ne dañuy yëngu ci éducation freiner violence bi nga xam ne mu ngi commencé vraiment di sonal espace scolaire. jot na kon ay tëralin ñu jël ko ngir dakkal lu ni mel ñii leen di interpeller kilifa yi. instruction waa feeru Adji Sarr Ousmane Sonko mu ngi aw ci yoonam normal tey jële ci suba médecin bi nga xam ni moom moo établiroon certificat médical bi nga xam ni moom la ñu jox ajisaar Sarr mi doon liggéey ci Sweet Beauté ak euh, nattangoom bi ko ak accompagné woon doon euh, tudd di Ahmed mbay bis bi nga xamante ni bii euh, ci la ñu ni ci la jëf joojo amee moom Sidi Mbaye moomee moom moo yoroon lu jëm ci wàllu transport maanaam moo moo transporté woon lu may loole itam euh, déglu yi nga xam ni déglu nañu leen ko ci fond wu dossier bi mi ngi ñëw ginnaaw bi ñu njëkkee déglu fukki fan ak ñeent ci weer bi ñu nekk d'avril lañ njëkk déglu aji Sarr ak kii di Ndeye Khady njaay mi nekkoon patronam ci salle de massage sii di Ahmed mbay wax naa ko sànq moom la ñu jàpp ni.